c'est la référence. ngeen ñiy toppandi ci juróom-ñeent fukk yu tombal benn kaddu gi di àddoo fii ci Medina Baye ngeen ñuy teewloo ci ay gox yu fa juróom-ñeenti waxtu ci suba nag jot na ca préfecture gouvernance ak conseil départemental mbokk yi dal leen jàmm ci tu xabaar yi ci kalamay koccu ci yàttal bu ngeen taxiloo rek ma jukki leen li ci gën a fës. li ci nar a gën fës nag bokk na ca rigala guñu ñoom waa coalition ñoo lànk ñoo bañ suñu du ko yokku ndax nag ni ki tey jii daañu wàccati ci mbedd Kaolack yi wane seenug mel dañu ca dégg Cheikh Ahmed Tidiane Diagne ci waxtu woowu le nag waa mouvement aar sunu commune bu Ourour na doyal sëkk la ñu def ci seen jaraaf ba ndax nag defu fa tous ànd ak ne tamit nag ma ngay fëgub dënn Papa Mamadou Dia moo ca wax dañu ko dégg ci ndox te foo xabaar yi tabbee fu ko war a wuutu Sayodo Bakhoum ca conseil départemental bu Kaolack nag yëngal na ni ki démb seen ndaje ma gannaaw ba ñu wotee seen ko budget ba noppi ma nga fa woon moom Cheikh Ababacar Dieng gouvernement bu lëkkaloog banque islamique de développement ngir xeex ndool ak ñàkkum xëyum ndaw ñi jaaree ko ci programme bi di palam ci ñaareelu pàcc bi lu ni meli tamit nag daañu ca dégganteeg soxna nday Fatou Cissé bu li lépp yembee mbokk yi daañu ca teg gëstug bés beeg Cheikh Tidiane Sarr xabaar yi bi te réew ak Ndeye Khady Sadio xabaar yi tàggat yaram ak Serigne Moussa Kane di yéene kaay yi xëy tey ji leen mbiram Alaaji Oumar Cissé lay doon Haji Libas Mbaye ci wàllum xarale gi firim fànce gi bu lees ki see lay doon Le journal Ngoné Ndiaye Reine moo nekk ci waxukaay gi asalaamaaleykum kaddu gi di àddu fii ci studio Alioune Momar Lo mbokk yi dalee nag jàmm door bi la jotaayu xabaar ak na ma leen ko euh, junjee euh, coalition ñoo lank ñoo bañ suñu courant kenn du ko yokk nag tey jii daal daañu raatale ci mbedd Kaolack yi buñ ca noppee nag yegg ca préfet jébbal ko bataaxal loolee lépp la ko wund ak Cheikh Tidiane Diagne. coalition ñoo lànk ñoo bañ suñu courant kenn du ko yokk ñoo nara ak moo mbedd Kaolack yi tey jii ci ajuma ji. léegi léegi nii sax la ñu police woo pour def xoolal ci enquête bi léegi am nañ yaakaar parce que suñu la wooyee pour def xoolal enquête dañ lay laaj ni ngay def marché ak ak yow yaay kan. Sidi Balayara Lom Disi mooy coordonnateur bi fii ci Kaolack. ñun nag suñ demee nag dañ leen wax ñun ay kilifa lañ que ku mel ni Dame Dia commerçant la ku mel ni Baye Dia commerçant la ku mel ni Alaaji Fallou Ba opérateur la ku mel ni Lom Disi baatu askan bi man xam nga opérateur la am na ay médecins l'essentiel daal ay Samba Boy néew ci groupe bi ñu si nekk ñëpp ay kilifa lañ. ca cœur de ville bu Kaolack la ñuy déparé jaar marché central jëm Medina Baye wàccaat préfecture ngir jébbal préfet bu Kaolack bataaxal bi ñu xaatim wax li leen naqari. courant bi nag lu ko waral parce que dañ ne dix ko yokk maanaam tey diwil bu nekk mille franc la moo nekk borom doole yi te ñun askan bi dañoo sonn lool rawatina ñiy liggéey si courant te courant su yokkee dund bi yëpp a yokku bu njëkk ba Senelec moo ñu waxoon ne courant bi doy na dinañ ko wàññi kii ñëwaat tey gi ne courant bi dañ koy yokku yooyu nekkul ñun état bi xamul ni mu toll Ndeye Aïda Sow kenn la ci ñi ko dund. mënuma concevoir kuy am facture treize gën a cher quinze mille ñu indi la facture trente mille c'est inadmissible kon yëf yi jéggi na dayo fi mu nekk nii ñun dañoo dee rawatina ñun jigéen ñi. benn pàcc ci réew mi mel ni kontaanuñu dara ci gouvernement bi nga xamante ne moo fi nekk ndax nee nañu jamono ji alalu askan wi daal ñu ngi koy passer passeree bu baax a baax bu ñu sukkandekoo ci Ndeye Aïda Sow mu ne rongo ñu baadoolo gi siim ci rey buur ba léegi jógu fi. Sénégal li fi nekk dafa ëpp ngi dégg dialyse yii nii entre deux personnes man maa ngi interpellé président de la république na yërëm askan bi askan bi sonn na maa ngi oo tamit jigéen ñi kaw la yëpp surtout les femmes au foyer na ngeen ñoo lank ñoo bañ jàpp ne sax li nga xamante ne moo di yokkuteeb courant bi teguñu ko fenn te itam li ñu war a nu mu gën a gaawee bataaxal bi wane ne war nañoo amal dox boobee ci mbedd kaw la gi nag war a bàyyeekoo ci préfet bi ba ba ñu fay mujjee jotaguñu ko woon waaye nag ñu bu baax ne marche bi ni mel dara ko tee am tey jotee jaajëfal la bu baax a baax Cheikh Tidiane Diagne waaye ña nga ñuy xamal ne nag léegi di daal préfet daa mujjee gàntal boobulee doxub ñaxtu waaye nag dañuy des ak ñoom kaddu ya ñu jiitaloon Sidi Balayera ne yaakaaru yàkkeeta ci suñu njiit yi ak la ñu ñu digoon moom mooy njiital ñoo lànk ñu bañ fii ci diwaan bi mi ngi ci micro Cheikh Tidiane Diagne am na solution parce que marche bu gars yi defoon Dakar si lendemain ba si oo ay tubaab nañu ñi ay expert lañ ñoo xamante ni xaw ma ay kilo joxewul dat joxewul dat bi tey dafa mel ni sa moom nguur gi moo ko a sacrifier parce que ñëpp xam nañ ko mairie Kaolack la ko la soxla kon nag tey nag moom suñ jëlee tey teg ko fii wàññi ko la courant bi moom du moom waa Sénégal nañ xam loolu am na benn di xoolal DG waxoon lay liggéey sama client daf Sénélec ñu ne ko ñun nekkul waa Sénélec ñu ne xoolal gouvernement bi la parce que tey gii nii cent milliards yi nga xamante ni gouvernement bi moo ko doon tey gouvernement bi cent milliards war ko jëndee ay xoolal oto Macky Sall su ko neexoon wàññi xoolal milliards yi député yi lu loolu noonu ñu wàññi léegi tey di nga subventionné xoolal courant bi nii waruñu nax tey askan di dem di jaay ji courant di koy xoolal jéggaane yaa comprendre bëgg gëmloo ne dëkk a taal na àll bi mais da ko jaarale ko li mën si ay xoolal projet def leen enquête boobu te sax ñun sa suñu courant kenn du koy après dinañ tey def la délégation ko dem si àll bi dajale waa xoolal ci àll bi invité leen xoolal ñu leeral leen loolu àll bi gën a sonn fopp àll bee gën a sonn fopp ba tax na tamit nag ñu ne askan wi yëpp nañu jóg rek ngir xeex li raam ndax nag buñ ko defu tee yar bay tamit ci kaw ñëpp la nara dal Dame Dia nekk commerçant bokk ca ñoo lànk ci diwaan bi mi ngi ci micro Cheikh Tidiane Diagne ñi ngi ñaan askanu Kaolack nañ yeewu xam ne lii ñuy wax ne du njariñu daam Dia du njëriñu kenn njëriñu askan wi la léegi nag bu fekkee ne nit dañ lay woo ci sa njëriñ war kenn warula see jiitu fekkee am nga xel nañ leen ànd président Macky Sall ko na wàññi courant bi bu fekkee ne ñoom dañoo jëloon alal réew mi saax saaxee ko ba yëg ne réew mi am na problème mais xaalisu réew mi yooyu ñu wax ne dañ ko war a mais bëri na ne foofu milliards yi ñu soxla ana milliards yu Prodac yi mais baadoolo yi pourquoi ñoom lépp lu métti rek lañ koy jëlee nañ yërëm ngir nit ñi ngir yàlla président ñun fii Saloum Jakarta lañ am marché bi ñu doon liggéey yaa waxoon da daan doole daanaka dañuy taqale bu fekkee dañuy taqale ba pare li ñuy taqale taqagut nga ñëw bëgg ñëw tegaat beneen problème dañuy maar ngir yàlla yërëmal baadoolo yi yërëmal néew ji doole yi. facture yi ngeen jot yéen commerçant marché est-ce que gis ngeen ne yokku na. avant ñuy kii nii facture yi commencé na yokk. marché bi léegi nag bu fekkee ni si période sedd bi lañ ko yokk mais bu tàngoor wi ñëw kon ñun fan lañ jëm président nit ñi Sénégal mel ñun liggéeyutul bu fekkee liggéeyuñu pare nga ne liñ doon liggéey taxes yi da koy yokkaat fan lañ jëm ñu lay ñaan daal ngir yàlla loo mën a def si jàppale sa askanu réew jàppale leen te yàlla tax boo ko mënul nag ah seetaan leen képp ku nekk Kaolack rek ku mës a taal courant donte 1000 francs ngay fay donte da ngay jënd carte ñu ngi lay woo courant bi dañ ko war a wàññi dañ ko war a wàññi dañ nañu woon euh, courant bi dem nañ ba dañuy jaay bitim réew waaye boo demee ba sa ay jaambur gën a la sa askanu dëkk mais loolu ñaaw na bala ñoo jaay waa àll ba nañ fexe ba waa dëkk bi am ba lekk ba suur soo ko jaay Macky Sall na baay ni muy def. Dame Dia askan wa ca commune bu Ourour nag ay jafe-jafe dëgg la ñuy jànkonteel ànd ak ne tamit nag seen jaraaf ba du diisoo mooy buum mooy buum mi ci bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi waa mouvement aar commune bu Ourour Papa Mamadou Dia moo ci yëkkati ay kàddu ci micro Alfayda. boo xoolee piste yi dëkk la jaar moom bu génnee këram du doxati ci suuf bu bëggee dem fii ba Dakar du doxati ci suuf ñaar yëpp buntu këram lañ jaar ci budget bi bi il prévu de construire un poste de santé dans son village ci biir dëkkam lépp luñ jël rek moom dëkkam la ko yóbbu loolu aussi taxul nit ñi teg ko fi booy defar da ngay defar pour ñëpp forage bi fi ñu ko programmé woon bu ñu ko fa defoon kon du am problème parce que mand boo ko xoolee moom bi bu ñu ko fa tegoon a servir population yëpp kenn du am benn problème mais mu jël ko dem yóbbu ko à 50 mètres de sa maison loolu du une gestion collégiale ce sont des choses yoo autorité war nañ ci mën a revenir pour corriger ko le de santé yi ñaar ñoo fa nekk mooy bu urur ak bu kolobaan mand bu kolobaan mand sax d'ailleurs mur yi boo demee c'est dans un état délabrement baaxu ci yëpp dajeeku porte yi am na maternité jigéen ñi fa ñuy accoucher ak fi ñuy defee salle de pansement bi benn la da ngay toog jàkkaarloog salle d'accouchement bi te loolu sutur la war a mën a doon loolu problème la te jigéen ñi am na xam ni bu yoon bi la ñuy amee doom loolu c'est une réalité bu ngeen ko laajee jigéen ñi wax leen ko loolu vraiment war nañ cee jóg courant bi nag moom lu am solo la ci ñeen fukki ak ñaar kese moo fa yeneen yi des yëpp ci lëndëm lañ des ba tey nag ci jafe-jafe askan wi jëmee ci wàllum njàng ak ak njàngale étudiant yi génnee Kaolack yenn saa nag tey dem ci ne daara yu kawe yi tumarankeeka toltolaan la ñuy nekkee ba tax na daal jamono ji ñu jiite ci diwaan bi moom itamit mi ngi jokkoo ak noo bi ay problème étudiant Kaolackois yi nekk si yeneen université bëri na trop parce que boo xoolee lu ñu mën a am problème bi njëkk mooy information bu jàll d'abord orientation ak li nga xamante moo nekk considération bu ñu war a am ci biir espace université parce que nekk Saalum Saalum dem dëkk boo xam ne xamoo fa kenn amoo fa ndey amoo fa bàyyi donc nga nekk foofu noonu amoo ku la jàppale aussi si nécessaire vraiment si côté boobu pour ñu ñëw ñu ñëw jàpp xaayam li ñu naan mbooloo mooy doole ñu xàccandoo dóorandoo ñi nga xam ne ñoo am ay problème ñu jàppale leen euh, ñu nga problème il est à la besoin de ce fascicule wala ticket resto wala leneen leneen donc day ñëw gis président socio pédagogique bi mu wax moom après mu jàppale ko si loolu ñun daal loolu moo nekk suñu am nañ problème mu boo xoolee étudiant Kaolack waay ñoo ëpp biir Dakar ak yeneen université yi boo dem sax Kaolack waay ñoo fay ëpp mais dañuy gis ne ñun étudiants yi si boppam dañoo ñàkk doole parce que bëri boobu moo waral tey Dakar mënuñ fa am locaux dañuy tàllal loxo képp koo xam ne autorité nga yaa ngi Kaolack wala foo mënti nekk nga nekk bonne volonté ñu tàllal loxo pour ñaata personne la am yoo xamante ne ay personne de valeur lañ personne de qualité lañ ñoo xamante ne dañ leen a dégg fu ne mi ngi noonu ñoo ko déggandoo ci waxtu woowu leen nag ndaw ñi ànd ak may sa Wade ne Sénégal seen wecc gi nguur gi woote bu dee ne rek bëgg na daal mu am ay résultat ami njuxteef waxta nekki waxi kese waaye nag war nay ànd ak i pexe ka yëkkati yooyu le kaddu nag mooy Badou Ndour ma leen jiite mi ngi ci waxtaan ak Noa bi ay lecture bi ñu ci am rek euh, mooy comme d'habitude rek acte yi nga xam ne le président Macky mu ngi koy posé à chaque fois mu nekk euh, acte yoo xam ne du ànd ak accompagnement day nekk ressources ay slogan yoo xam ne bu rafet la mais bu fekkee accompagnement amu si aussi mu nekk initiative yoo xam ne c'est juste pour wax ni ñun jàpp nañ ne moo gi fi doon xew rek benn la parce que lu mel ni Kaolack bu ñu fekkee dañu jël journée lancement bi fii Kaolack

Dakar fii kanaal yëpp a fees dell boole kaak nag mbalit mi moom foo xool mbalit maa ngi fay suux jóg man damaa jàpp ne seen initiative bi rafet na mais comme li fi doon xew moo fi am. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM dañuy àddu nag jëmale ci euh, leneen déggoo ak juboo am na ngir ubbi jàkka ji ñu tëjoon ca diwaanu Wélingara waaye nag jël nañ ci ay matukaay ci mbiram imaam ak juróon coow la Modibo Traoré moo jiite comité de pilotage ba yoroon liggéey ba mi ngi ci micro Babacar Diouf. am nañ ay déclaration comme ni ñu ko waxee sëñ Babacar yu ñu bëgg a def pour euh, mbirum jàkk ji donc euh, maa ngi représenté le comité de pilotage pour ubbi jàkk ji Wélingara nga xam ne yàlla dañoo nattoo tëj ko depuis daanaka lu jege léegi ñaari at bi mooy dong que ni daanaka depuis lu tollook juróom benn weer ñu ngi si activité di jéem a xool naka la ñuy trouver solution pour ubbi jàkk ji donc finalement si suñu dernière réunion bi nga xam ne ça s'est tenu le 21 décembre 2019 dañoo dëppoo que ni charia la ñuy utiliser comme procédure pour ubbi jàkk ji bu ñu waxee loolu nag luñ ciy dëgg moom mooy dañuy def test test nattu nit ñi xool képp koo xam ne bëgg nga doon imam nga bindu si huissier de justice bi huissier de justice bi pense que nit ñi xam nañ mu dëkk Vélingara fii fu muy liggéey sëriñ bi boromam bindu foofu depuis lundi bi la commencé donc dëmb ba mooy fukki fan ci kanam moom mooy le janvier donc délai de 10 képp koo xam ne moom yaakaar na ne mën na doon imam mu dem bindu foofu bu demee ba bindu ba ñëpp mu ñu xam ne nangami nit ñoom ñoo bëgg a bindu et ñoom ñoo bëgg a doon foofu imam bu boobaa ñu nattu leen ñu nattu leen par rapport ay questions xam ne dañ leen di posé ci ay mbir yoo xam ne leer nañu ni imam waru koo réere bu ñu demee toll foo donc ci gàttal loolu la képp koo xam ne bëgg na doon imaam ci biir dëkk bi fii jiite jàkk ju mag ji ne dem bindu foofu bu bindoo foofu incha allah bu loolu yëpp jeexee dañuy teg commission a jàll bi amuñu candidat te jàppalewuñu kenn faraluñu kenn contre ñu kenn képp ko koo xam ne imaam nga ci biir comité bi wala mën nga doon imaam si jàkka ji te nga nekk ci biir comité bi yow moom exclure nañ la génnee nañ la mënoo ci bokk. Modibo Traoré foofee nag coow la fay na waaye démb nag coow laa nga ne woon cour ca conseil départemental bu Kaolack ci ana kan moo war a wuutu Sayedo Bakhoum junjoon naa leen ko lépp nag gannaaw ba ñu wotee seen budget ba noppi ñoom conseiller ya Cheikh Ababacar Dieng. werante bi yëpp nag mu ngi jóg ginnaaw bu ñu wootee biski bi ba noppi dégg ci yeneen tomb yi mooy kan moo war a remplacer Sayedo Bakhoum président Baba Ndiaye toog ci wetam préfet jàkkaarloo conseil départementaux yi coow li na kur ñu indi ñaari téere teg bii code électoral lay jàngale beneen bi moom di wax rek ci acte trois naka la ñu falee nit préfet mi nga xam ne moom moo fi nekk daf ne bu ñuy remplacer sa yedda baaxum dañu fay jaaree respecté waale parité ci bureau conseil départemental bi lii la yoon ni conseil ni dinañu ko dégg ci saa si nag moom Ahmed Tidiane Thiaw jël kàddu gi waaye sàkku nag génn ndaje mi pour dem. mooy déglu naa président déglu naa leen xam naa ne ku bëgg du ma nit kuy daw rees yàlla xam na ko du ma nit kuy daw responsabilité lu ma ca góobee gar ko waaw ni ma waxee rek ak lii ma tënk laa jël président wax naa ko ko SG wax naa ko ko depuis démb moom moo tax may sàkku su ngeen ma ko mayee ma yeewi ko ngeen baal ma président ngeen yeewi ma la ca des yéenu neen la Mounirou Ly mooy ki ñu jàpp ne moo war a jël place yi sa yeddoo nekk ku conseiller ci biir conseil départemental waaye ci bureau bi moom kenn remplacé gu ko président Baba Ndiaye ne dañuy xaar ba jëmmi jamono comme nii la demee. waaw Seydou waxtaan nañ tey ki ko war a remplacé mooy suñu liste coalition benn bokk yaar xam nañu ko. lu ñu koy bind moom mu confirmé mu confirmé incha allah benn cité bi ñëw daañu ko installé benn bi si tegee it mooy remplacement am na yoon bi ñuy wax yoonu parité mooy tey jigéen ak góor dañ ko respecté fii si baaxum ci postu premier vice président bu conseil départemental candidat yi bëri nañ ka ci jiitu mooy soxna Mbooja Ñas bu Serigne Mamoun Modou Sukka Ndiaye bu AFP te dëkkee ci Kër Soose Badou Diallo bu ki ak Ibrahima Kanté bu PDS dëkk Bongare ñoom ñi la ñëpp nag ñàkk a déggoo ci kàddu tax na bile mu jël am ci fàttali Sayeda Baaxum mi ñu bëgg a wuutu ni mu ngi génn àdduna bi sub àjjuma tombe fukki fan ak ñett ci weeru satumbar ca Ndakaaru jamono Ando jaajëfal la bu baax a baax Cheikh Ababacar sa te des ca googule mbir budget ren bi nag la ñu ca bàyyi xel bari na ba yegg ci lool bokk na ca rek wàllum wér gi yaram waaye tamit wàllum njàng ak ak njàngale natt ga ren ak na mu toll njiital conseil départemental bu Kaolack Baba Ndiaye moo cay waxtaan ak Cheikh Ababacar Dieng woote nañu ko si jàmm comme d'habitude noonu la faisee euh, waaye nag tey ñi jàpp ne lañ jàppoon si wàllu njàng mi ak li ñu jëm si wàllu wér-gu-yaram nekk na loo xam ne ni gën dañ ko téye waaye nag dugal nañ si yu bees mu mel ni changement climatique yi nga xam ne tey dafa bëri ay yàq-yàq si àll bi désert bi mi ngi avancé xorom bi mi ngi avancé loolu lépp ay jafe-jafe la indi fi mel ni Kaolack donc changement climatique yi dana nekk euh, thématique boo xam ne ni dañ si liggéey incha allah en 2020 mais si wàllu wér-gu-yaram projet bu mag bu soobee yàlla ñi koy indi fii si Kaolack pour xeex ak siburu xam ngeen indi jafe-jafe fii projet boobu français moo ñu si jàppale dañ ko def également si six communes du département de Kaolack ñu commencé si Kaolack commune bi nga xam ne mooy chef lieu de région bi yéen de Ndofane de Kahone de Gandiaye mais également Sibassor mais également commune Ndiafate si Koutal nga xam ne Koutal dëkk bu mag la loolu dañ ko ànd ak maire yi ànd ko ak conseil départemental yi fa dëkk pour que loolu nekk euh, activité si biir Kaolack pour bi nga xam ne mooy jógee France a capteur la yoo xam day jàpp yooyu cest boo ko tegee dafay capter yooyu yooyu bi nag mooy indi sibiru donc yooyu bu ñu leen ramassé jël leen ñëpp sibiru dootu mën am yu autonome la également ndax day dox ak lu am solo la lu jëm si wàllu respecter écologie la risque bi ñëpp d'accord ba wootee ko ci ñaata la toll pour 2020 budget 2020 millions mais c'est en baisse par rapport au budget de l'année dernière ñu benn fukk ak juróom-ñett fukk waaye xam nga si équipement nañ ko bàyyi mu liggéey xaalis mu pare ñu fay ko kon nag xaalis boobu téeméeri million ak juróom-ñeent fukk mi ngi suñu kees depuis 2018 mais laaluñu ko ndax loolu dañ ko sargal centre de formation métier artisanat na également am nañu lu ko donc mu fekk si loolu année 2020 mu nekkoon ay nekk njiital conseil départemental bu Kaolack ñu daal di addu nag ci beneen ponk bu ma leen junjoon ak beneen ndaje programme bi di palam phase 2 bi di ñaareelu pàcc bi nag dikk na ci diwaan bi nara yi yi jaarale ko ci tàggat njàng ak ak njàngale ci wàllum alphabétisation soxna Ndeye Fatou Cissé. tey moom li ñu taxoon a ñëw ci région de Kaolack. ndaje bu ni mel doon am kon démb ca makkaanu chambre de commerce ci njiitalu gouverneur bu Kaolack teewee woon nañ ko ñoom acteurs ya ca nar a dugal seen loxo. programme bu gouvernement du Sénégal ak banque islamique de développement xalaat pour jëmale ko ci néew ji doole yi surtout néew ji doole yi nga xam a sori ak Khady Fall Ndiaye di directrice su PALAM programme boobu nag dafa am ci lu mu jëkkoon a yëngatu ci ñaari région muy région de Kaffrine ak région de Diourbel ñu liggéey ci li nga xamee ni bi dafay mën a tax ba xale yu ndaw yi nga xam ne mosuñu dugg école wala xale yu ndaw yi nga xam ne dañu jàng ba ca digg ba ñu dàq leen wala xale yi nekkoon ci daara ya mokkal alxuraan te amatuñu fuñ jëm yooyu dañ leen boole dugal leen ci ay école yoo xam ne dañ ko tabax a am doon waaye nekk ci diir bu gàtt xale yi nga xam ne itam dañuy dem jël gaal yi loolu itam soxla bu rëy la ñi nga xam ne ñi ngi taxawaalu xamuñu fu ñu jëm macha allah. loolee tax kon programme bi jug bu weesoo tàggatu gi nag ci yenn yi ak gunge da cee am ngir mëtal la liggéey bi. boo xoolee ci programme bu njëkk bi am nañ ci ñoo xam ne ñaar fukk ak ñaar am nañu CAP ñaar fukk ak juróom-ñett am nañu ay compétence maanaam ay firnde yoo xam ne mën nañu métier palam di jàppale tamit jigéen ñi ngir koom bu gën a yaatu Ndeye Khady Fall Ndiaye. Euh, xam nañu jigéen ñi ñu am Pastef lañu nekk ci ay fànn yu bari di ci liggéey mais dañu laaj ñu jàppale leen organiser leen jàngal leen alphabétisation parce que loolu tam da ci am solo. juróom-ñaari milliards ca pàcc bu njëkk ba lu ëpp fukki milliards ak ñett ci deuxième phase bi lee falam koppar yooyee ñu cay def gouvernement bu Sénégal ak banque islamique de développement ñoo ko séq programme baa nga bootu ci ministère de la femme. sant la gërëm la jaajëfal la dañuy des ak yow ca googule mbir programme boobee nag dina wuteek programme yi fi daan jaar ci lépp lu aju ci wàllum gunge te itamit nag lu yem bokk téeméeri dëkk ak fukk ak juróom-ñaar dañ ca dugal seen i yoxoo mu nar a doon ko mbégte Alioune Badara moo Gornor moo jëmaloon ndaje mi ngi ci micro soxna Ndeye Fatou Cissé. may wax rek ne région Kaolack am nañ mbégte tey ji recevoir programme bi muy Malam 2 parce que programme la bu nga xam ne nii li population bi peut-être mën nañ wax ne ci gën a néew doole ñun nag taxaw nañ takku pour ànd jàppale programme bi pour mu réussir parce que programme bi au niveau central lañ ko tëggee mais fàttewul ne pour ñu appliquer ko ci niveau région niveau département niveau local ci lañ ko mën a appliquer ba tax na def na ay plateforme plateforme bi nga xam ne niveau régional la man en tant gouverneur maa ko ak yeneen chef de service yi ministère concerné yi préfet la ak seen i service ak maire yi fàttewuñ nag ñi nga xam ne ñooy bénéficiaires yi bénéficiaires yi nag ñi leen di représenté mooy mbootaayu jigéen ñi sëriñ daara yi ak ñi nga xam ne ñooy mbootaayu xale yi conseil régional jeunesse conseil départemental jeunesse conseil local jeunesse je crois daal bu ñu ko defee ñii nag jàppale ñu mooy li ñu tuddee APDC mooy relais yi les agents porteurs de développement communautaire mooy ñu jox moto yi sànq ñooñu ñooy dem nag ci àll bi dem ci fond bi pour waxtaan ak nit ñi wuute lool ak yeneen programme yu bëri parce que programme bu nga xam ne nii résultat yi dañ ci teg suñ bët léegi léegi léegi léegi te surtout pourquoi moo am différence ak yeneen programme yi nga xam ne daf doon lutter contre pauvreté mooy programme la bu nga xam ne daf lay former ba nga am capacité te du jël xaalis bi rek jox la ko nii parce que généralement boo leen joxe xaalis comme ça rek te gunge leen ba mooy xaalis boobu dañ koy lekk wala dañ a soxal xooli keneen ku ànd ak mbégte njiital Pouponnière Lamine Coulibaly bu Kaolack nag ci njeexintalu at mi sant na gërëm jaajëfal ñëpp ñi fa dugal seen ko koppar ci wàllum ndimbal ndax nag gënoon naa métti ca moom ak xale ya mu uuf madame Diaw Fama Ndiaye moo ci waxtaan ak noa bi lii ñu indi si xale yi mooy li nga xam ne xale yi dañ ko soxla lool surtout ndox ndox doon na loo xam ne xale yi moom la ñuy naan ndoxu minéral yi xale yi moom la defaree seen biberon te ñu ngi fekk fanweeri xale tey chaque mois rek damay soxla 70 litres bouteille sant yàlla rek nit ñi dañ ko yëgul woon dañ ko xamul woon moo taxoon dimbal yi xawoon a yéex mais bi ko nit ñi xamee ba tey nit ñaa ngi indi ñii dinañ indi comme ñi koy def ni ñu koy defee looloo tax nag du mën a doy na waaye sant yàlla ndax dëgg yàlla boobu ba léegi nit ñaa ngi indi association yeeg bonne volonté yeeg ñi nga xam ne ñu ngi siy jàpp par weer yëpp ñu ngi jàpp di jàppale xale yi nga xam ne tolof tolof bi moo leen dal ba duñ ko sentir. yéen ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 point 1. ña nga ca taaxum kaw mu ñu duppee Cheikh Imam Assane Cissé wéyandi ci xabaar yi mbiram jiw nag doon na lu am solo ci béykat bi ci wutin ba ci toppatoo gi lu ni mel nag tax na rek mu bëgg leen a gindi jege ji ay borom xam-xam moom noo bi ay jiw lu am solo la ci wàllu gàncax ak leneen yoo xam ne mu ngi dund ci kaw suuf si surtout si wàllu bay suñu sukkandikoo ci Mamadou Lamine kamara mu am 60 ans mu nekk agent technique ci wàllu bay muy nekk ci retraite retraite. damay wax ni jiw mooy àdduna bépp xeet boo xam ne jiwam réer na rek xeet boobu dafay réer mu dalee ci génn ci biir géej ñax yi garab yi be ci doomu aadama yi ba ci mala yi bu ci nekk dafay protéger jiwam ñu suñ maam yi sax xam nañ ko avant agriculture moderne bi la di judd xam nañ importance su jiw ba tax na ku ci récolté moo xam basi la moo xam suuna moo xam mboq ci sa récolte bi nga gis da nga ciy tànn li ci gën a rafet nga takk ko ba léegi ki seen système boobu mu ngi continué léeg nga dem ci benn néegu paysan nga gis mu ngi takk ci kaw kiyam bi ay jiw boobu lañ tuddee la sélection massale. résultat bu jot amoon ci atum 1960 ci wàllu sélection ay jiw yi kii mu nekk expert ñëwaat na ci tamit. agriculture modernisée encadrement yi jëkk am nag ñu continuer di séparer aussi xam qualité xam importance ak qualité jiw ñu commencé di jënd gerte semence à part di jënd production à part depuis ONCAD Sonacos ba les dernières années mais par la suite nguur yi xaw autorité yi xaw a dem ci un peu facilité bi di piocher benn collecte tout mélangé bu ñu demee di bu jiw jotee dem tis usines yi li fa conditionné li ñuy wax jiw boobu vraiment tu pas certifier y a pas ko certifier parce que semence duñ ko jëndee noonu. ci fekkente wàllu bay muy far di am gàllankoor fi ci Sénégal ki xam-xam bu macc ci wàllu bay bëgg-bëggam mooy ni ñu delloo ci ancienne méthode maanaam mag yi ñi doon tànd ay jiw yi ngir ñu gën a yokk. production ci baykat yi. gën a yokk njuxteef gi noix bi yaay te nag bu ñu soppiwul doxalin duñu ko mën a am wala sax jiwu yu bari daanu nax saay ka ko xamle mooy mooma du Mamadou Lamine Camara xelam ci jëm ci wàllu mbéy mu nekk ab technicien de surface mi ngi ci waxtaan ak noix bi yaay. kooku suma inquiétude la at yi ñuy nekk di dem nii bu ñu changé wu les systèmes li ma gis production dafay baissé il faut que ñu revenir un peu en jiw étape la boo xam ne mun nañ ci sauver campagne bi dama ne ci biir zone yi am na ci ay zone te agent agriculture yaa ngi fii gouvernement bi agriculture am nañ agent yoo xam ne mun nañ par l' intermédiaire chef de village yi am nañ ay zones yu ñu mun a détecté seen gerte baax ñu jënd dafa jiw traité ko recommencé à zéro di joxe semence à part petit campagne continuer nii parce que jiw qualité bi baaxul surface bi mën a yokk jiw bu baax rek moo mën a yokk surface jiw bu baax rek moo mën a indi production FM yegg nañu nag ci suñu gëstu bés bi nga xam ne nag tey dugg na ci biir askan wi jigéen ñi amul jëkkër ak seen ko tànneef ci góor ñi ci waxtu woo xam ne nag góor ñi nga xamee ne daal dañoo amup soxna ña nga naan ña ngay daw ba daanu waaye nag mucc jafe na Cheikh Tidiane Sarr. man moom su préféré moom homme laa préféré. seetlu bi moo di ci Sénégal léegi soxna yu bëri dañuy tàmm génn ak ñi nga xam ne ñooy marié yi di phénomène boo xam ne ñenn ci askanu Kaolack am nañ ci seen i gis-gis yi. musuma nag man am naa jabar damay wuti man moom may dem di wëri mais nag jigéen dragué ma rek moom cherchel ma boppam loolu mosuma dal même étant célibataire am marié la am idée bi sax moo njëkk a bot waxuma laa def des fois da ngay dàq dàq ba sonn Doudou Mané di ab marié ay atam toll ci fanweer ñu fekk ko ci place am mu toog moom mu ngi ñuy nettali histoire bi nga xam ne sax daloon na ko ci digganteem ak benn soxna benn cas boo xam ne waruma sax ay deux semaines yooyu ñëw na fii dama amoon na nag mais da nga neex. lu ko soriwul lool ci centre ville bu Kaolack ñu dajeek beneen waaye bi ñuy wax Ousseynou Mboup mu sol ab xaftaan bu xaw a bu la nekk ko yamamaay moom muy xam xamle ne dëpp mu marié ba léegi soxna yi mayuñ ko benn yoon jàmm. pour man ci li ma jàpp xam naa looloo gën a tax taamuñu ñun ñun ñi nga xam ne ñun ñooy euh, homme marié ku da nga naan rek bon moom na gëm yàlla te xam ni yow jullit nga yow mi ngi ko yow mi ngi ko sékkal donc jàpp ne di nga dem di xooli feneen parce que xam nga jullit sa diine wax waxuñu la sax téeméer yat mais ñuy ci lu jëm nag ci yenn si soxna yi ñoom ku ci nekk ak ni nga jàngatee mbir mu nu mel. booy dee xool comme marié yi des fois ngay gën gis ñoo xam fu la fayda bi ay caaxaan yu bëri mooy tax man moom su may préféré moom comme marié laa préféré. mu wuteeg lool gis-gis Adja di ab xale bu jigéen sol ab body bu noir xaw xees tuuti moom mu jàpp ne boo gisee yenn ci soxna yi di def lu nu mel dara waralu ko lu dul bëgg lu yomb rek. xale jigéen ñi morom papa yi lañ parce que tamit boo xoolee xaalis moo ci dugal. weñ gaa nga bañee sa mbanjaxaan ga di gis-gisu Momar Thiam di ab agent de sécurité mu jàpp ne. question d'éducation quoi. waaw parce que éducation dafa nekk loo xamante ni bu ko nit ki amul yaakaar naa ni day nekk nit boo xamante ni day nekk en perte de vitesse te du am repère kenn ku nekk nga am koy xool koo xamante ni ku jub la ku baax la di rëy ci moom ci lu baax di rëy ci moom ci yar ak tegit pare dañoo yemul benn yoon ci seen soxna yooyu ba tax yenn saa yi yenn ci soxna yi di leen jiima dragué maanaam di leen jiima nax. xabaar yi bitim réew. yi euh, biti réew ma ngaa ko roppalaanam fu mu ñu jëmee rek ñu dem moom Ndeye Khady Sadio. soxna Ngoone Jaay Kan xabaaru biti réew yi dinañu yóbbu ca réew ma Mali bi càdd ak Téhéran. xabaar yi. bitim dañ koy dooree ci réewum Mali foofe nag njiital coalition wu mouvement bu Azawad di Semaon ak plateforme mouvement bu 14 juin bu Alger àgg nañu ca Bamako àllarba ji ngir teewee ab ndajeek waxtaan bu leen di jubale ngir jàmm mën a amaat seen ak diggante gornooxu euh, dëkk ba nag di daw Dawda Maïga dalal na leen ci pàttali nag diggante ñaari coalition Touareg yu mag yooyee ci ndox ndoxteelu weer ak décembre ba léegi seen diggante nag dafa am ñagas ñagas officier ba ñu reyoon te bokk ci MSA waxtaan wa nag door nañu ko démb ci ngoon ci alxamis ji ci teewaayu général Hadj gàmmu di président conseil supérieur ba ngir mën ko ay yombalal lañu duppee ko facilitateur xabaar yi bitim ñu dem ci réew ma Libi foofe nag am ndaje bu am solo moo amoon uh, ca Istanbul dajale woon ay njiitu réew di jaaxal nit ñi ci njeextalu boobu leen ndaje nag muy kàddu ya Recep Tayyip Erdogan ak kii di Vladimir Poutine yëkkati di sàkku ngir ñu teg ngànnaay yi ngir dakkal xeex ba muy lu kenn xaarul woon ci ñoom ñaar réewum turc nag moom ma ngay jàppal tànk gouvernement union nationale ci jamono ji nga xam ne rek uh, réewum russe moom ma ngay uh, dooleel maréchal Haftar ñaar waaye eh, terewul nag ñoom ñaar njiitu réew yooyu xamle nañu itam ne daañu dooleel conférence internationale ba ñu nar a amal ci njeextalu weex wi ca Berlin li koy tax a jóg nag mooy dooraat waxtaan wi soxal wàllu politique ci kilifteefu Nations Unies nag la nar a doon. xabaar yi. bitim ñu dem ca réewum Tchad foofu nag gannaaw ba mu laajee ci waxtaan ba mu seqoon ak ay jëwriñam njiitu réew ma nag daal nay jël dogal dajeek syndicat ya nga xam ne tàmbali woon nañu ab grève juróom-ñaari fan ci weer wi ba euh, tey jii ba mu dajeek ñoom nag ci àllarba ji nangul na leen lu bari ci lu ñu doon ñaxtu bokk na ci dëkkuwaay yi waaye itam yokk prime yi ak gi syndicat ya nag nee nañu donte déggoon nañu waaye nag laata ñoo dooraat njàng ma faw ñu xaatim ko ba mu leer ba euh, noppi xabaar yi bitim réew ñu jeexalee ko ci réew ma terrain foofe nag soxna Ngoné Ndiaye Kane lu tolloo ko ñeent fukki kàngam ak juróom bàyyeekoo ca Ukraine àgg nañu foofe ca réew ma terrain bu ñu sukkandikoo nag ci ñangank wàllu kaaraange ga ca Ukraine nee nañu nag la leen fa yóbbu bokk na ci jéem a xàmmee doomu Ukraine ya bokk ci l'accident l'avion boobee ñu duppee Boeing 737 bu compagnie Ukraine International Airlines amoon keroog àllarba juróom-ñetti fan ci weer wi foofee ca terrain ba téeméeri nit ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn yemu ay yeboon daal di cay ñàkk seen bakkan njiital réewum États-Unis nag di Donald Trump xamle na démb ci ngoon ne am na xel ñaar ci la ñu jàpp ne moo sooke l'accident ba muy la ñu bëri jàpp ne dañu ko sox ci lu dul tayeef moo ko waral ndax ci boobule jamono fekkoon na réewum Téhéran doon sànni ay missile ci dalwaayu soldaaru Amérique ya ca Irak. bitim réew soxna Ngone Njaay kan lii la leen indiloon ci xabaaru bitim réew yi ñaanal leen lu jàmm di ko sàkku ci yenn jàngeen jëf xabaaru tàggat ba nga jibee ci stade Lamine Kouragay Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu Ngoné Ndiaye maa ngi lay fay tey nuyu mbokk auditeurs yi di leen ziar ci ajuma ji ñu sóobu ci xibaaru tàggat yaram yi dañu koy doore ak Jeux olympiques Dakar lii di baseball 5 nag ak wushu ñoom nag guleet ñu bokk ci programme Jeux olympiques ginnaaw bi nga xamante ni commission exécutive bu comité international olympique daal dinañ dëggal li ñu mel seen réunion bi ñu amaloon jëm ci wàccaayu Jeux olympiques de la jeunesse bay am ca Lausanne ci atum 2020 gi CAN 2021 ginnaaw édition 2019 bi ñu ñu weesu nag dëggal nañu ne nag ne CAN 2021 bi ma ngay amee ca Cameroun ci weeru janvier ak février bu ñu sukkandikoo daal ci njiitu CAF di Ahmad Ahmad mi dëggal li ñu mel nee na sax fukki fa ak juróom ci weeru janvier gi ci la ñuy xam ci yenn bés la ñuy amal CAN 2021 foofu ca Cameroun basketball la ñuy waxtaanee ndax Astou Traoré ak Bintou Diémé ñoom nag tere ji nañ ca CDB Clarinos nekk ca Espagne Eliéru fanweeri at ak juróom ñett bi nag ak mëneesu fanweeri at ak juróom bi ñoom la club tànn ngir seen ex expérience ngir jëm ci li nga xam te ni moom mooy bi nga xam ni dañ ci am ay jafe-jafe ñu fàttali leen nag Astou Traoré ma nga bàyyi ko ci saison bi foofa ca Angola fa nga xamante ni jot na fa amal li nga xam ni moom mooy FIBA African Women kii di Bintou Diémé nag taxu ko siiw loolu foofa ca Espagne waaye club bi mi ngi yaakaar ci duo Astou Traoré ak Bintou Diémé bi nga xamante ni jamono ji dañoo nekk ci jafe-jafe ndax ca classement ba ñu ngi jël ci juróom-ñaareelu toogu bi ñu waxtaane wàllum football Rail ma laale ak HLM Grand Yoff Oslo di laale ak Salisport Club ca dend ko Europe ñaar fukkeelu bëccëg bi ci Ligue 1 française tey ji lay door Rennes mooy dalal waa Marseille ñaar fukkeelu bëccëg bekk ñaar Premier League anglaise Sheffield ma laale ak Super Coupe d'Espagne dem si ñaareelu demi-finale bi nag Barcelone dafa ñàkk ci kanamu Atlético Madrid ñaar ci ñett leer na nag fu mu toll nii final bi mi ngi war a dox ci diggante Atlético Madrid ak Real Madrid bi nga xamante ni jàpp nañu ko fukki fan ak benn ak fukki fan ñaar ci weeru février atum 2020 Guédiawaye FC mooy laa leek Génération Foot CNEPS Excellence di laale ak Dakar Sacré Cœur Sonacos di laale ak Douane NGB ñaari tali di laale ak Kër Madior Thiès FC di laale ak Jambar Tëngéej FC di laale ak Jamono bu Fatick demb Diop di laale ak AS Pikine EJ Fatick di laale ak Casa Sport ñu waxtaanee wàllu mercato nag Bordeaux moom joxe na njëg li nga xamante ni moom la nar a jaay kii di Youssouf Sabali di fukki million ak juróom ci wàllu wàllum euro latéralu ñaar fukki at ak juróom benn bi nag club yu anglais yu bëri ñu ngi taxaw ngir jënd ko ku ci mel ne Crystal Palace Brighton Fulham ak Southampton ginnaaw bi mu def saison bu baax a baax ci Ligue 1 française ak club bi di Metz Habib Diallo nag waa Chelsea ñu ngi ci topp ba teg ci taabal ci lu toll ci ñaar fukki million euro Ngoné Ndiaye ren ginnaaw ba ñu la ñaanalee kandaayu jàmm gënoon a fës ci xibaaru tàggat jarami juma mubarak li ci yéene kaay yi kaay yi Le Soleil, Sud Quotidien, Walf, Le Matin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 ak terroriste yi enquête yéen a kaay ñu ko xamal ab loi bees tàq moom la nar a samp Sénégal lépp ngir xeex ñu ñuy duppee ay terroriste a yaw gàttal lu jëm ci ay song wala ñi nga xamante ne dañu jël ay nit soppi leen ay terroriste di leen jël recrutement ak ñiy tëkku ak a xuppaate ak ñiy kañ wàllu terrorisme ñoom ñëpp la loi bi di dal seen kaw ba tax njiit réew Macky Sall ma ngay moytuloo sénégalais yi ndaw ñi wàllu internet beeg yi ni mel le quotidien yéen a kaay na Macky kay nee na caaxaan war ñoo seetaan dara di ñu bettu nañuy jël suñ matuwaay moo tax man tàmbale naa ko ci ab boo xam ne sécurité intérieure bi moo ko a jóg laas yéen a yi ni mel nag njiit Sall ma ngi ko yëkkati ci bi ñuy xamal Sénégal rentrée des cours des tribunaux maanaam ëtt attekaay yi vox populi jox kàddu njiit réew Macky Sall muy xam ne la gis nga terroriste yi ak ñi ñuy duppee ay jihadis nañ jóg fagaru ndax xoddeeku ca ba nga lakkaleegut ca geneen wàll ga njiit réew Macky Sall nee na ñi nga xam ne nag dañuy mbubboo lislaam di def ay xutba wax wax xam ne waroona ak lislaam nañ ko ba wala nit def ab ñaawteef di mbubboo lislaam nee na lislaam ak terrorisme comme yalla ak yàlle bokkuñ sax lislaam diina jàmm diina ju baax te gis nga terrorisme sax xamul benn diina bu ko d'accord nay leer laneen lu leer leer ba yegg ca naan ja mooy ne 2020 bi njiitu réew Sall teg na ci ab agenda li mu nas jëmale ko ci état tekkaay si di quotidien moo ñu ko xamal juróomi téeméeri million Macky fas yéene taxal benn fonds ngir tàggat avocat yi waa grand place yéen kaay na ko jeexagul ma yokkal la ci ab daluwaay bu bees tàq siège moom la fas yéene defal waa cour suprême ba tax yéen kaay bi ne defar na seen affaire turbine yéen na ko lenn daal moom a jaaxal démb wax nañ ci wàllu atte wàllu terrorisme wàllu wàllu lii wàllu laa waaye daal mbirum kiré yi ko xam alal ji lewut loolu moom waxuñ ca dara la mu wax moom général ñaa mooy kàddu guerrier ca ba ñuy amal ndaje commission solidaire bu dialogue politique bi source ay yéen a kaay ñu ko xamal la mu ñu xamal moom l'observateur mooy juboo gi amoon diggante njiit réew Macky Sall ak Ablaye Wade jubbartiku nañ maanaam réeroo waat nañ carte ga nar naa jaxasoo yow seetal Ablaye Wade nee na moom Macky gannaaw bi ñu jubooyee fa waxoon na dana ñëw seet si ko te ba léegi Macky demul seeti Wade te ci diggante bi moom Macky na fi seeti ji Abdou Diouf ñu ne déete waay sama doom ji Karim Wade ay mbiram dañ ko war a ak yelleefam di kat ci réew mi te Macky dafa gut ko ñu ne déete waa yaat yi Oumar mi nga xam ne man dama koo seppi abandonné ko football ko ca biti génne ko PDS ni ku koy làq boole ko ca dialogue national ba loolu kay mooy ne Macky jàppaloon ma fa may xeex ba tax l'observateur ne lii nag moo tax ma jàpp seen diggante ci ñagas la jëmaat de nay leer laneen lu leer ba ne dàng ni janttu subaar mooy ne réewum Sénégal lépp jaar na yoon wàllu xaalis réew mi amul jafe xaalis ci gàtta daal lépp normal na du samay kàddu nag Abdoulaye Daouda Diallo jëw nañ juñ dénk wàllu kopparu réew mi moo Soleil yéen a kaay nee na Sénégal daal porte bien waa ñoo lànk ñoo bañ na ko yow xanaa waxoo Sénégal gii ñu nekk wala boog ngaa foog na ñun dañuy nelaw yow Sénégal jafe-jafe yi jeex courant baa ngi ni ñu yokk ko ba tax ñu ngi war a amal doxu ñaxtu niki tey ci àjjuma ji yow ngay wax lan l'observateur ne waa ñoo lànk kay nee nañ danañu tàngal yëngal Sénégal tey ndax doxu ñaxtu bi du Dakar rek de ayaw seetal diwaanu Kaolack ndangaan danañ fa amal tey doxum ñaxtu naka noonu diwaanu Mbuur Thiès ak yeneen ci gàttal juróom-ñaari diwaan libération na kon kay tey àjjuma bi dana tàng dana saf les a kaay ne non pourtant nag du tàng de parce du am benn fitna ndax préfet joxe na ndigal ñu amal doxu ñaxtu bi ci jàmm ak salaam kon benn policier du fa sànni ay grenade nii ay xeer nii dara moom kay occasion la ngir ñu wane seen bopp ak mbooloo mu bari yéen a kaay bi ne loolu nag lañ ragal tey ndax opposition bi ku jéggi ñoom ñëpp ak yeneen mbootaay kuréel fekk ji neen waa ñoo lànk ngir ànd ak ñoom ci seen doxu ñaxtu bi critique yéen a kaay dëggal ko ne gaañu kay dañoo nar a wàccee tey Sénégal ci doxum ñaxtu mbooloo mu bari l'évidence yéen a jox kàddu Déthié Fall bu parti réew mi ma ngay weddi ba tëdd ca naaj wa koy lànkale ne Idrissa Seck amul benn deal bu mu def ak Sall képp ku ko wax li nga wax amul li am daal Pape Gorgui Ndong exclusif yéen a kaay ne na xaw tuuti làmbaay ñaaw de commune am ba lañ ko kajjee dàqee caab final lépp ndax ñaaw lu taxawaayam libération na boo moytuwul nag maire bu Touba Abdoulahad Ka boo moytu looloo ko nar a dal de a yaaw seetal wàlluk tappale ci lu tollo ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ak juróomi million ci suñu xaalis moom la ñu tudd mairie ba fa am ab marché faux ñu waroon def Touba dëkk bu sell ba waaye yëfee ko doxalee gars yi nañ jaarut Diallo jël mooy footballiste Chelsea fukki milliards ak ñett lañ ko fay record yéen a ne laaj bi nag mooy ndax Metz danañ ko bàyyi mu dem football ji ngeen dégg ci ne maa ci tàggat yaram Diallo ba ca stade yéen a kaay fekk fa ay mag nijaayu Sadio Mané ay kàngam ci wàllu football ña wax Sadio Mané ni mu nekkee ñoom booy bandek ndoofee nag ñëpp d'accord nañ ci ne Sadio fa gëm boppam liggéeykat moo tax mu yegg fi mu yegg si tey mën arrêté man ma arrêté li ci yéene kaay ak mbir mu garaaw te yéeme xamee ca diwaanu Ziguinchor a yaw seet benn soxna daal moo fa wann lor am doom dem ba ca àll ba mu sànni fa xale ba allah ba pare dem ñibbi benn fan ñaari fan ñetti fan ñeenti juróom ba juróom benn fan xam ku dem ca àll ba for xale ba fekk xale ba di dund l'observateur moo ñu ko xamal waa ma ne laaj bi nag mooy nee na tuuti boobu xale ba fan la doon nàmpee lan moo ko doon dundal xale moom alalu yàlla la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 fare woon ci wàllum euh, déglu gi waaye tamit cant ngërëm ñeen na xaaj libaas mbay mi féete woon ci machine bi ak waa rédaction ci njàppandal gi bu leen puus bu leen randal léegi-léegi rek daa ngeen féexal seen ko xool ak yor yoru zikar mucc ak mucc le jàmmi bi rek bi ci taw féex ak tey siir mbokk yi jàngeen jëfati Le journal Ngoné